bon initiative bi dafa dañ koy rafetlu donc Futurs média nekk na groupe boo xamante ne fu mu nekk ni sur le plan international mondialement gars yi ñu koy seetaan ñu fi liggéey vraiment ay kàngam lañu ñu am ay compétences euh, bu ñu jëlee initiative bu mel nii man li ma ci njëkk ñaax mooy maanaam nañ ci bàyyi xel bu baax ci côté sécurité bi parce que vraiment gars yi bëri ñu ci wax ne lamb ji yaa ay manque de sécurité mais combat bu ñu teg Balla Gaye Eumeu Sène nekk na loo xamante ne gars ñu ko doon xaar parce que déjà boo xoolee Balla Gaye daa jóge daa jóge ci défaite Eumeu Sène jóge ci defet donc loolu nekk na loo xamante ne fu mu nekk nii ñoom ñaar yëpp ñu ngi préparé combat bi mais damay ñaan vraiment euh, groupe Futurs Médias ñu farlu ci lu baax moyens yëpp ñu def ko ci et aussi sécurité bi ñu veiller aussi à la sécurité et aussi ñu xam ne vraiment lamb ji nekk na loo xam ne luy mën a développer ci réew quoi parce que ñu loolu lañ ci am quoi mooy suñ cosaan. waaw bon man personnellement mon avis personnel parce que Balla mu nekk nii euh, war na bëre Eumeu Sène boo xoolee parce que euh, Balla Gaye fu mu jógee. ramp ba yegg ci kaw bu wàccaatee war na bëriwaat ak Eumeu Sène parce que Eumeu Sène aussi euh, doon ko koo xamante ne def na ci ay preuve yu bëri ci làmb donc fu mu nekk nii ñoom ñaar revanche daal pour man bu ñu bëriwaatee dafay nekk loo xamante ne euh, amateurs yi dañ ko soxla quoi. combat bi man vraiment dama koy rafetlu quoi mais dama ci ñaax aussi sécurité bi nañ ci farlu parce que da ci am solo. parce que ñu bëri dañuy dem ci làmb mais bu ñuy ñibbisi dañuy jooytu naan manque de sécurité def nañ ma lii def nañ ma la donc ñi initié affaire bi fit groupe Futur Média nañ ci farlu ci sécurité bi bu baax. non combat bi du yomb du yomb parce que déjà Balla Gaye du may dara Eumeu Sène te Eumeu Sène aussi moom miin na Balla Gaye miin boo xamante ne moom à chaque fois bu muy taxaw day naan Balla Gaye du champion parce que moom mos na daan Balla Gaye donc je crois boo xamante ne dafay metti te vraiment gars yi dañ ko xaar gars dañ ko doon xaar combat boobu bon man pour man Balla Gaye na mooy daan. Ah, demoon nañ ba ne benn instant làmb fay na gisatuñu promoteur gisatuñu sponsor groupe Futurs Médias groupe bu mag la ñëw na jël en charge ibi ibi groupe Futurs Médias entertainment la ñu wax xaw ma pour mën a mm, sukkaliwaat làmb ji comme comme déjà cadre sport la déjà sukkaliwaat làmb loo xam ne suñu suñu suñu culture la suñu tradition la mu tëgg affiche boo xam ne affiche bu mag la entre Balla Gaye Eumeu Sène ñun nag golf lañ dëkk ñu ngi ci woote Balla Gaye 2 voilà bu ñu seewoon moom yàlla may ko ndam moom moom moo jógee defet instant bi amatul loo xam ne moom la waa tànn wala moom la waa tànn instant adversaire yi adversaire yi ñoo ñëw moom amu bu mu nekkee position Waly Sagne mënoon na ne kii laay bëri ak kii laa dul bëri mais instant bi nekkatul position favori foofu nekkatul position maanaam ci kaw donc instant bi moom fa fa mu jël ay yenn risques yi pour pour mën a demaat fi fi mu jógee woon non du yomb ñaari ñaari boom doole yu daykee du yomb moom damaa bëgg mu daan yàlla daan parce que bu daanee suñu koñ bi dina neex danga koy waajal ñaari combat ñaari champion ñooy daje ñaari doomu Casamance la ñoom ñëpp ay sénégalais la ñu bon bu neex la war a doon voilà mais nag euh, fu ma nee ni revanche lay doon ça sera un combat du siècle waaw waaw mais nag man euh, su ma sañoon na Balla mooy daan voilà parce que suma champion la ma seen suma la ñoom ñëpp doomu Casamance la mais nag euh, nañuy gars yi bëree ci fulla ak ci fayda bon li yep affaire supporter e, di wax ni bala casamance la deuk ki yep le le mais ndam bi du gene senegal nani gaay beure ci fair play supporter ñan ñi xamne que dom senegal ñoy beure bu ñuy beure ñi bañ indi ay violence tout temps que le meilleur gagne mais nak je veux que bala gagne voilà groupe média moom ma kay ma ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen si kanam di wér parce que vraiment da ngeen di jàppale sport Sénégal ci ci toutes les plans voilà ngeen jàppale ñëpp ñi xam ne booy ngi nii di entrain di ngeen jël combat bi di bëre vraiment je vous remercie beaucoup et que je vous souhaite euh, que Dieu vous bénisse de tout ce que vous faites yàlla yàlla jàppale leen di dimbale nit ñi sport yi gën a dem euh, kanam